auzubillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe sëriñ Tuba jaaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall ko xam sëriñ Lamine Bara Fall xam ko xàmme ko ràññeeko ko ci baag yi ngeen di faral di gis écran bi comme ni jaaro yi li ci gën a am solo mooy daf lay aar pour cat dalay aar pour làmmiñ dalay lay aar pour rab da aar pour jinne ak seytaane ak nitu guddi ak lépp luy feebar loolu rek tax na nit war na am karange ndax yooyu mooy yàqal nit loolu mooy tax nit ñi ñoo yor dara ñaareelu mbir ba day ubbi say buntu wërsëg ndax nit wërsëg ay buntu la nee nañu buntu wërsëg yi juróom-ñaar la am nañu nag ñu naan fukk buntu wërsëg la am na naan am na lu ko ëpp waaye nañu jàpp exemple nit ku nekk ci ñun bu sa juróom-ñaari buntu wërsëg ko di nga dund ci kaw suuf ba jóge fi te dootoo soxlaal kenn dara dootoo bokk mukk ci nit ku naan jërëjëf dañ la naan jërëjëf xaalis day ñëw bu baax nga am avancement ci sa liggéey te xaalis boobu su ñëwee day toog ndax nit ñu bëri membrane dañ am jafe-jafe wërsëg bi bi day ñëw mais du toog. bisimilah alaaji baara dégg naa say mbir bu baax a baax a baax li ngay def leer na li ngay wax leer na ñun moom ñun taalibe murit yi moom yaakaaruñu kenn ku dul Sëñ Tuubaa ak Seex Ibra moom moom laa lay bàyyeel moom mi nga xam ne moom moom lépp man nag ci sama jëmu bopp ku mbir leer na ndaxte bi nga feeñalee ku sa ngëm-ngëm ci yàlla ak ci yonente bi ndax te kii wax jiital ku suñu borom ak ah, ah, yonente bi kooku am defe naa ragal na suñu borom ragal boo xam ne nii lu muy def yëpp mu ngi ci xool ku suñu borom ak yonente bi ndaxte ku dee yàq ko sa bàmmeel la te xool nga sa digganteeg ko sa bàmmeel ak sa njaboot bi nga xam ne moom ngay bàyyi ginnaaw man it koy koy yàlla la lay bàyyil ak sëñ Tuuba ak Cheikh Ibra ndaxte ñun moom la ñu yaakaar fii te te moom la ñu yaakaar fële kon nag li ngay wax leer na ci ku ci barke borom waa rawatina nag ci wàllu bayre da ngay am bayre yaa xam ci bépp activité commerciale booy def wala ngay yëngatu ci wàllu développement wala ngay yëngatu ci politique wala ngay yëngatu ci lu munti doon te jaaro itim comme ni ngeen ko gisee dafa baax ci kuy tukki lii moom nit du ko takk demande visa ñu rejeté ko foo bëgg dem ci àddina loolu daal mooy membrane li nga xamante ni mooy njariñam salaamaaleykum sëñ Bara Fall ma ngi ziar ah man de awma sa fay wax deug yalla parce que bima ñëwé ñëwee Belgique tukki woon naa def 3 ans ñu delloo ma awma kayit ak yalla def ñu bolama ak yow ma ñëw la arrêt du balees la ah man de jaar bi may dégg la bëgg bi ma joxé jaar bi ma dem ñaan visa dëkk bi bima ñaan visa nak dëkk bu mak la dëkk bu jafé visa sax la ñaan muy Angleterre bi ma ñaanee ñu jox ma visa trois six mois maak sama doom ma ñëw fii Angleterre dugalaat kayit bi ma dugalaatee ñu jox ma cinq ans direct ak passeport aw ma nag sa fay maa ngi lay yokk di la ñaanal yàlla na yàlla fay yàlla na Serigne Touba fay ak sëñ Baara daa kontaan naa ci trop trop trop parce que li ma la waxoon yëpp defal nga ma ko wax dëgg yàlla. nit nag bala mu naan day mën a dimbale kenn xool leen ko moom jëmmam ba pare te ku ko am dootoo am soxla buy fanaan di nga am sutura te di am sakk. rawatina nak ci walu wér-gu-yaram def ci dox ndax buñ la koy jox fay ànd ak secret bi nga xamanteni nako leral ndax day dox ci walu wér-gu-yaram kep ku wéradi tak ko rek moy ci kàttun yalla yalla dina dimbale ci sa febar febar bobu nu mu munti tollu ci tak gi rek waye dana am lu mu andal pour sa walu wér-gu-yaram spécialement adna bi ñu toll ni nak ñepp soxla ñaan te ñëpp soxla galat lolu mom nañ ko wax rek te waaw suuf bu sutanteere dañ ko jall diw diw bo gis for am lu muy diwo kon nit ku nek war nga mëna am ay ñaan yoy def sa yaram euh, nan nga mëna def nak ba jotti ndax bëri na ñu nekk Europe gi te soxla ko Amérique ndax lii moom fépp lay dem ci àddina ku nekk dakaar nekk Matam nekk Fouta wala nekk Kolda wala fu ti doon it danañ xefe ba noo si jotee ndax am nañ ay livreur am nañ ay cak-cak am nañ ay correspondant yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jëlal suñuy colis di ko yóbbu dans les régions képp ku ma soxla bëgg bëgg sama jëmm am na itam ticket de consultation soo bëggee consulter pour xool sa yaram wala nga bëgg def consultation à distance def li si xaar mën naa ne wala nga ñëwël sa bop dag sa ticket gi ma sa bop bu fekkee da ngay jënd sa jaaro nga jënd sa jaaro bu dé da nga bëgg ay ñaan wala nga bëgg yenen wala lo ci yok wala lo ci dolit loolu yépp ay sam lañu té duñu seexlu jur kenn té képp ku ñëw dañ la dalal danañ la respecté té respecté la confidentialité des autres képp ku ñëw dañ la may ñëk ak sutura ci li ngay wax dina yam ci suñu digënté allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam jërëngën jëf merci beaucoup on vous remercie vraiment Euh, de ce que vous faites et de ce que vous dites. Vraiment, c'est vrai qu'il est rare que les, que les de nos jours puissent faire ce genre de choses. Je vous remercie énormément. Maintenant, en ce qui concerne la bague, en fait, je voulais faire cette bague-là parce que le, délai était déjà court. Hein. parce que quand le délai est court comme ça, ça nous permet de, gagner énormément. Je ne sais pas comment vous dire encore plus merci. Je ne sais pas comment Marie peut vous dire encore merci pour cela. Que Dieu puisse vous remettre au centuple ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire et ce que vous ferez. Que Dieu puisse vous remettre au centuple, que Allah puisse vous remettre au centuple ce que vous faites et que toutes vos affaires puissent encore plus, encore mieux même, encore marcher. Car c'est vrai que quand on fait les choses avec le cœur, Dieu ne le rend toujours au centuple.